Ibrahima Faye mooy fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni mooy actualité actuelle bi nga xamante ni moom la Jeune Afrique def ci caricature Cheikhul Khadim radiyallahu anhu eh, liñ ci xalaat ci eh, kaw lislaam ci lislaam waaw euh, <coughs> bi ñu yëgee ni eh, lii xew na li njëkk li moo dañ ko méttitlu ni ko jullit yëpp méttitlu euh, ndax caricature boo ko dee tënk mooy saboté mooy wàññi darajey nit loolu le jeune Afrique def ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu euh, biñ ko yëgee tamit en tant que bu yëngu ci lislaam di ci di di jàngalekat euh, ñuy waxtaan ak sunu bokki juddit yëpp ñu bàyyi xel ni eh, dafa am ay lobby yu nekk ci àdduna yoo xamante ni lislaam mooy seen benn mooy seenub noonu tey boroomi xam-xam lañu yu xóot di ay boroomi moyen di ay boroomi pexe lobby yooyu nag bokk na ca eh, lobby juif yi ñuy wax wala lobby maçonnique yi ak lobby góor jigéen ñaare moo tax euh, xalaat bi war naa gën a xóot fi koy jàppee war nañ ko gën a approfondir euh, Serigne Baye Samb bu jëkk bi mooy euh, sunu borom subhanahu wa dafa leeral ni ñi gën a taru bañ ci jullit ñi mooy yahudi wala tajid wala tajidanna saddannaasa adawatan lilladina amanu al yahuda mooy juif yi ñoo gën a tar ak mbañ ci jullit ñi mu waxaat ni nañu bàyyi xel ni walan tarda anka al yahuudu wala nasaara xata tatabia millatahum baada auzu billahi min shaytaan rajim maanaam yahuud yi ak nasaraan yi moo xam ay lobby juif moo xam lobby tubaab yi duñu bëgg ci yéen mukk feek bàyyiwu leen la ngeen jàpp bàyyi rasulullahi bàyyi alquran ànd ak ñoom suñ bay lépp waxi suñu borom subhanahu wa taala ndax bu ñu yàlla ne moom <coughs> sëñ Ousmane foofu la lépp yam bi ci desaat it suñu borom subhanahu wa taala di wax ni ñoom juif yi ñoom tubaab yi ñoom lobi maçonnique yi ñoom lobi góor jigéen yi ñoom de duñu duñu bëgg ci yéen duñu dañ di leen xeex ouvertement ndax yi ay ay ay moo tax euh, jamono ji Eh, jullit ñëpp war nañoo wàcc te xam ni suñu réew mi bëri na lu ci rax lu ci dugg te bokku ci te li ko ci dugal ay loxo la li ko fi ay loxo la loolu war nañ ko gën a xóotu sëñ bay bu jëkk ba mooy yàlla moo ni wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yarudduukum an diinikum in istataau sëñ bay nee na ñoom lëbi yooyee du ñu dañ di xeex wet yëpp politiquement financièrement du ñu dañ di leen xeex ba ba la ngeen jàppoon ngeen bàyyi ko ñëw ca lañu jàpp te loolu du am kon sunu boroom wax jullit ñi nañu waaj waxuma ko keneen waxu ko sunu borom subhaanahu wa taala moo ko wax moo wax ni yéen jullit ñi na ngeen waaj baada auzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani sunu borom waxaat ci Alxuraan ni euh, wa aaddu lahum ma stataatum min quwa wa min ribaati alxayli turhibuuna a aduwwallahi wax aduwwakum yéen julli ñi na ngeen waaj te xaroo noonu yàlla yi xaroo noonu rasulullah yi xaroo noonu lislaam yi noonu ko koy dégg na ngeen wàcc wàccaay wi gën ci jamono ji ma fexe ba xam parce si c'est la guerre des nerfs waaw c'est la fexe ba xam waaw bu dee ay matériel it nañ fexe ba wàcc ci matériel bu dee finance it nañ fexe ba wàcc ci lépp parce que dafa am loo xamante ni e, boroom xam-xam yi dañ lépp loo gis rek dafa am lu koy tontu dafa am muqaabil waaw waaw e, maanaam e, tey nit bu waxee jox la bind bind delloo ko du ko fay da ngay wax jox nit bu bindee jox la dangay bind delloo ko bu jëfee jëmee ci yow nanga nga jëfee jëmee ci moom loolu eh, la boroom xam-xam yi fii yëpp eh, universitaires yu mag yëpp wax ni tey nag fa ñu jaar na ci média bay dettal lislaam ñu nit nañ fa yaar ba dooleel lislaam fa ñu jaar ba caricature Cheikhul Khadim mi nga xamante ni nee na léppam lislaam léppam rasulullahi la bëggul dara amul dara li mu am lenn la. mooy mahabbatu rasul moo ko waxal boppam daal di ni day man daal ab soppe laa ku am cofeel la ku bëgg laa ci rasulullahi wa maa yabaahu abaahu lu mu bëgg bëgg naa ko lu mu bañ bañ naa ko. Hmm. Hmm. Cheikhul Khadim ñoom franc yi ñoom góor jigéen ñi nga xamante ni l'islam dafa rey lu góor jigéen. charia da koo reylu dañoo mos a laaj Aboubacar Sadiq ni ko atub góor jigéen mu ni atub góor jigéen leen daal la ci xam mooy rey bi ñu ko reyee ba pare ñu lakk Aboubacar Sadiq mu njëkk wut wuute Rasulullah alayhi salaatu wa te sunu borom nee na li gën a yées ci àdduna mooy góor jigéen kenn mosu koo indi ku dul eh, nit mos a lu yées loolee ci xaw ma luut mu leeral ko eh, li indi loolu nag mooy ñoom dañuy si dañuy ciblé ñaar. moo ko waral bu njëkk ba mooy dañuy dañuy ciblé ay symbole rasulullah yi mooy symbole bi gën a mag ci lislaam waaye ginnaaw débat bi dafa posé fii ci senegal bi mu posé fii ci senegal ñu bëgg nag ñu orienté débat bi orienté ko bàyyi góor jigéen ñi ñu émerger te duñ fi émerger incha allahu rabbi fii duñ fi émerger ci réew mii waaw ndax lu mu leen jaral ñu jaral lu ko ëpp ndax nit bu fekkee ne yàq jaral la ko bakkanam yow defar na la jaral sa bakkan. te sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moom Cheikhul Khadim waxoon na ni loo gar sa bakkan am sa bakkan am loola. léegi ñoom ñu bëgg a orienté débat bi ngir ñu bàyyi góor jigéen ñi ñu teg nag kilifa yi ci réew mi ak yi ko wër daal ni ku ci nekk am na effet waaye boo laalee Cheikhul Khadim débat bi dana orienté wu dem ci caricature ndax xoolal Jeune Afrique depuis 1960 mu existé semaine bu nekk mu génne nga xam te ne génne lu ma deux mille 2800 et poussière 63 nëgë ni. ci eh, journalam boobu te di journal bu am réputation samp France ak tunisien moom ko nga gis ni ñoom lobby góor jigéen yooyu ñoom lobby franc-maçon yooyu dañoo def seen i tactique xam ni buñ ko buñ ko awee woon ci journal ci réew mi journal boobu moom tey jii lañ lañ koy éradiquer tey jii lañ koy massacrer ñu dem ba ci journal euh, euh, euh, maanaam Jeune Afrique am na ñu def ak ñoom ndax ñoo ñu bind loolee. ñoo ñu bind loolee demal ci seen œuvre mboolem kilifa yi nekk ci Afrique gëstu nañ ci te ay universitaires yu mag ñoo ci gëstu demal ci ci ci figure figure yi ñu def ci Afrique côté politique côté sociale côté religieux côté bu nekk bind nañ ci Cheikh Rafal bind ci Cheikhul Khadim radiyallahu ñoo ñooñu xam nañ kon bu fekkee tey dañoo delluwaat daan de caricaturer Cheikhul Khadim ñaar a ko waral bu njëkk ba mooy orienté débat bi. ba ca desaat mooy Serigne Touba symbole la boo xam te ni boo ko laalee mu ñu xam ne l'islam yëngu te l'islam dañuy xeex te fekk l'islam mabbuñu ko duñu am jàmm te duñ ko màbb nag moo tax nag dóor fa yaayul sunu borom subhaanahu wa taala nee na wa man i'tadaa aleykum fa'taduu alayhi bi misli ma i'tadaa aleykum ku jalgati jëme ci yéen jalgati lañ jëme ci ci moom kem li mu jalgati jëme ci yéen sëñ bay kon dóor fa yu ayul ginnaaw nag fa ñu aw nag bay saboté lislaam nañ fa aw ba defar derub lislaam defar derub sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam defar derub derub jëwriñu Cheikhul Xadim mi nga xamante ni woon dafa waxoon ni nazafatuhu kulli min allahi taharat wa sunnatahu insa rabbi ubayinu danaa yor sama saabu lu ñu taqaloon lislaam taqal ko sharia taqal ko sunna ma fuut ko ba mu set wecc mu wax ni sama dund gépp ak sama jóge fi ak sama njaboot yëpp maanaam batale naa ko rasulullahi alayhi salaatu wa salaam ni ndénkaan la ci sunu borom subhanahu wa taala xotte ab dëkk boo xamante ni dina dara ngir jaamu yàlla rek la ak jàngale xam-xam ak topp njug daw lépp luy tere Cheikhul Khadim moomee kon ku laal laal nga lislaam laal nga rasulullahi laal nga képp ku baax kon loola moo waral julli yëpp jug gëstukat yëpp jug ci eh, Jeune Afrique moomee ñu interdit ko fii ci réew mi bu ma ciy dugg ndax dégg nañu réponse yi ci président de la république def dégg nañu ko rafetlu dama jàpp ni war nañ cee gën a taxaw lu ma ne taxawuñ ci ndaxte ci saasa bi niñ ko yëgee nee nañu wax euh, président joxe na ndigal ba wax waa zone Afrique ñu retire image boobu waaye du dañoo dañ dañoo bëgg ñu gën cee taxaw gën cee taxaw gi mooy ñu interdit ko fii ci ci réew mi parce que day yee fitna te gis nga Occident yi ak ñenn ci pays naar yi seen yitte mooy déstabiliser réew mi ndax am na l'islam yoo xam ne du l'islam am na ay coopération yoo xam ne du coopération ndax l'islam defara ko tax du jug waaye rek yàq tax ko jug terrorisme du l'islam waaw. terrorisme leneen la dul l'islam kon Occident si seen yitte mooy stabilité bi réew mi am réew mi mos am coup d'état problème yu yu bu majeur mosu fi am te bu ñu amuñu jàmm à 100 mi cent mais am nañ ko à 60 pour cent kon loolu ak yi léegi nag ñoo ñu taxaw nag ñenn ñuy tuddoo l'islam te du ñu ay jullit ak ñuy tuddoo ni ñoom daal dañuy jàppale humanité ak droit de ak ak ak droit de l'enfant wala droit de la femme wala <clears throat> liberté euh, de la presse loolu. bari na lu mu yàq bu bu naan liberté de la presse waxal lu sa yoon nekk waxal luy defar waaye bul fekk kilifa ak jàmbur nga koy tooñ bul fekk ñi xam nga ay gëm-gëm dañ ko war a waggar moo tax nag jullit ñu war nañoo taxaw comme juif yi ñuy def fexe nañu ba pénaliser képp kuy wax ci wàllu seen religion nga xam ngay amal affaire kon jullit ñi war nañoo taxaw yi nekk ci réew mi ak biti réew yëpp fexe ba képp ku dugg ci maanaam. ku attaqué l'islam wala attaqué gëm-gëmu euh, nit ñi <coughs> wala kili wala rasulullah wasalaam ñu ñu woote loi daal di koy pénaliser nga xam te ni loi yu ñu war a woote la comme ni juif yi def ndax loo ku ci ku ci wax rek am ak loi doo am juif yi affaire waaye loi nga amal affaire kon dañoo war a def noonu l'islam loolu nag taxawaayu jullit yi la taxawaayu jullit yi la taxawaayu jullit yooyu nag su borom subhanahu wa taala da koy da koy da koy cautionné wax ni al muminul xawi xayrun wa ahabu ila allahi min al mumini daif waaye fii kullin xayr jullit bu am courage sëriñ Bay jullit boo xam la mu war a xam mel na mu war a mel waaj na mu war a waaje moo gënal yàlla jullit bu ñu yàcc ñu yar lu ñëw ñu bàyyi mu dem moo tax sunu diine jii diine jàmm la waaye nag du diine yàppar yàppar yi kon <clears throat> toujours ñuy waxaat état <clears throat> ñu ngi dégg sax ci yenn déclaration yi nga xam te ni soxna Mimi Touré mi ngi koy def waaw short yooyu am na bu ñu ci gis ci réew mi dañu war a vulgariser mais l'islam confrérique bi bi sunu maam yi xam bi nga xamante ni moom moom la Cheikhul Khadim radiyallahu anhu doon jàngale bi Seydul Hadji Malick doon jàngale bi maam Bou Kounta doon jàngale bi Serigne Abdoulaye Niass doon jàngale bi taxoon maam Amary ndag di jihaad bi tax taxoon Cheikh Amadou Fouti radiyallahu anhu jihaad ñeent fukki jihaad bind ñeent fukki téere wër fu nekk ngir taxawal lislaam ak yaatal tariqa si Ahmed Tijaan radiyallahu anhu yooyu war la ñu war a jàngale digg nañ tamit ca Tiwaawoon président wax wax ju am solo yoo xam te ne war nañ ko appui te et war nañ ko def war nañ war nañ ko éclaircir mooy ñi xam nañu wax ñi xamul nañu noppi lu yàqu ju diine ñooña ñu Ousmane waaw ñi xam nañu wax parce que li Sénégal bëgg nañu lislaam bëgg nañu rasulullahi waaye xamuñu ko nag ñu baax lañu waaye xamuñu ko nag ñi ko xam nag ñoo ko ñoo ko war a wax rasulullahi dafa ni woon jëf ko ci lu yi bu ñu koy jëf ñi war a wax nopp yàlla boo leen bëggoon ñëpp kon ñu ñëpp ci ci la ñu bokk waaw kon ñi war a wax nañu wax ñi xam nañu wax ñi xamul nañu dégloo l'islam na boo dee seetaan télé yeeg rajo yi dañ koy tënk ci góor jigéen waaye ëpp na loolu l'islam dañu war a jàngale l'islam autrement waaw dañu war a jàngale l'islam autrement parce que l'islam facteur de développement la émergence bii ñu wax ba ko l'islam jàngalee yàgg na ba ko rasulullahi jàngalee yàgg na ba ko cheikhul xadim incarné yàgg na kon war nañoo bàyyi xel Occident ci xalaat ya ñu nekk xataa Amérique sax am na état yoo xamante ne euh, dañoo résister loob góor jigéen xataa Amérique xataa Amérique ci boppam état yëpp ànduñu ci lan moo tax ñu bëgg ñu ko imposer kon ñu ngi lancer message de le chef de l'État mu bàyyi ci xel parce que sénégalais yi ko fal à 65 pour cent waaw sénégalais yi ko fal à cinq pour cent ñi la fal nag à 5 à 65 pour cent lépp ci li ñu gëm bàyyi ko xel mooy nga sàmmal leen ko te ku ko ni duut baaraam nee ko duut baaraam ba ñëpp xam ne nee nga ko duut baaraam. ndax loolu day kontaan loo day kontaan réew mi waaye day kontaan loo kër Cheikhul Khadim radiyallahu anhu te kër Cheikhul Khadim bu kontaanee lislam bépp kontaan rasulullahi kontaan nañu xam ne nag lislam jam nañ ko ci xol waaw jam nañ ko ci xol rasulullahi dafa ni man raa minkum munkaran falyughayyirhu ku gis lu ñaaw sëriñ bay nang nang ko soppi bu njëkk ba mooy ci sa loxo état ko man waaw ñaareel ba ci sa kàddu sëriñ su baax see ko man nañu wax moo tax wax jot na nag bañ bañu lakkee la ñëpp a jug ñu lakk ko mu leer ñu télévisé ko net bi génne ko ñu lakk alxuraanul karim ca Amérique ñu saaga rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ca Danemark def ko ca Angleterre def ko fii ca France ñu ni teg xamoon nañ ñi ci ñun lañ dem si kon li am solo ba ñu lakkee alxuraan la ñëpp waroon a gën a jug ñu saaga rasulullahi ñëpp jug bu ñu agsee Cheikhul Xadim ñu taxaw ndax lislaam ko séenewul guerre waxul ni nañu tooñ waaye bu ñu waaye nag nee nañ nee nañu nañu riposte nañu taxaw waaw dóor fayu waaw dóor fayu aayul kon nañu xam ni am na ci loo xamante ni état rek ko man te dégg nañu président euh, déclaration yi mu ci def dégg nañu tamit sorties yi nga xamante ni ñi nekk ci moom ñu koy génne di ko wax yooyu yëpp ñu koy rafetlu te di ko cautionné waaye a yaatu te gën a gën a gën a profond yi nekk ci réew mi nag nañ leen combattre ouvertement ak képp ku leen di jàppale nag. ñu ngi lancé message képp ku leen di jàppale état bu nekk dafa nekk ci biir état état na ko seppi ndax lu ci bari da ko loo la moom président waaw donc donc da ngay da ngay dégg waaw nit boo ko bëggee dimbali danga nga naan ko lii da la yàqal képp ku ñu tuumal góor jigéen wala nga leen di jàppale président ne seppi loxoom ci ñoom te am nañu ay preuve yu leer demal ci net bi waaw demal ci www point france 24 point com lépp ta la koy leeral. kon képp koo xam ne sa loxo taq na waaw ndamal président mooy ko sa loxo taq na leen a ah toogal ne le ndax dafa am ñu ma fal te dafa am lu ñu gëm te loolu dem leen ko war a sàmmal nit nag boo ko war a sàmmal la mu gëm nit taq rip nekk ci sa wet ah loolu nag tomb la bu ñuul kon nañ ko bàyyi xel suñu réew mii bëgguñu ci la xew ci réew yee ca des xew ci réew mii te réew yi ñu wër yëpp. jafe-jafe dugg na fa terrorisme dugg na fa tubaab bi dugg na fi yeneen dugg na fa te it la gaar foofa mën naa gaar fii la gaar foofu ginnaaw mën naa gaar fii nag nañu artu nag xoddi ko bala ngaa lakkale prévenir dafa am solo waaw kon loolu mooy intervention bi nga xam te eh, eh, def nañ ko eh, ci turu lislaam waaye def nañ ko nag ci turu réew mi def nañ ko it nag feelu kilifa yi nga xam te ni ñëpp naqarlu nañ ko ñu koy naqarlu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.